tawagul waaye ñaari ay bés ngi nii Pikine West Technopole nekk ci njàqare ndoxum foos bu bari moo ball ci seeni gox wàcc ci kër yi ba ci école bi di école Kabiru Mbodj tax nag ba dem bi dikk bi yëpp tagatembe askan wi ku ci mel ni imam bi ak ñi nga xam ne ndox mi ñoom la gën a sonal àddunañ ci mbir mi. man la Pocco président supporter ASC Cosaan de Pikine nekk championnat troisième division régionale. gis nañ terrain bi nu mel affaire onance bi moo refoulé si kaw ñëw dugg si terrain cosaan te daaw la duggoon si terrain bi ñu def si presque ay 60 camions de suuf saabu lañ si def affaire may ñu jàmm defar arrondissement bu ko defar tali karo ñu def ko si kawam affaire bu rëfule toj ñëw dugg si terrain bi dugg si kër yi parce que terrain bi rek la mun a ñëw bu ñëwul si terrain bi kon si kër yi lay dugg kon terrain bi mooy solution loolu nit mun na koo nangu mais loolu normal kon nañu xamné li lii rôle maire bi la maire bi moo si war a jóg teg si parce que li nawet bu ko fekke day gëna graw koñ bi yëpp yàqu mi ngi xéñ téré bi ñu ngi ni téré lañ ko dag sax def ko téré bu ndaw petit catégorie du football parce que grand catégorie mënutuñ ci football parce que gis nañ dox ma ngi wala ngaan si boru préfecture bi wul kon war nañ ko xamni li bu fi yagge dina fi wat yenen dégâts parce que lénen mun na see juddu waaw boy defar tali karo il faut mu am ay grillage yoo xam boo ko defaree bu taw bi ñëwee mun a jaar si euh, si grillage yi dugg si ndox mi mun a dem mais amoo fenn fu mun a jaar dafa bu refulee day day tegu si kaw tali bi du wala ngaan bu amul fu mu jaar day xool ruq bu a jaar mu descente fa teere cosaan la descente dugg na si kër yi mais dem na si teere cosaan kon book man autorité yi laay waxal autorité yi waxul nag ñun quartier bi yëpp jóg ASC bi jóg taxaw si tali bi parce que lii c'est pas normal parce que li mu bëgg ëpp kon boog lu ñuy ñaan autorité de Pikine yi

yuuxu la ñuy def suñu doom yi mënatuñu noyyi ñun ay mag lañu ñu ngi sëqat ñu ngi def kénkaliba ñu ngi def rat ñu ngi def lu nekk pour suñu dënn yi mën a deñ suñu doom yi kenn jàngeetul kenn jàngeetul ndax ndox mi xoolal li nu mu verte xoolal lii xoolal lii ñun danoo son danoo taaye ñun danoo damm xoolal lii lii li yëpp ndox la ah kenn mënatul génn ah léegi ñu woon nag euh, euh, euh, premier maire bi Pam Ndong mu ñëw jàppale ñu fii Pam Ndog na génn ñëw xool lii tantam yeeg yaay yeeg maam yi ñëpp fi mu ni nii seen xol jóg na feebar nanu ah chaque jour ñi ngi dem clinique di faju ji ndax lan lii Pam na nañu jàppale fi mu ne nii takk nañ suñu ndig pour dem ci Pam Ndog wax ak moom mu ñëw xool lii te nawet baa ngi gën a ñëw nawet bi bu gënee ñëw nag moom dañuy dee dee la ñuy def parce que lii bu dee si fi la ñuy bu nawet bi ñëw moom dañuy moor ñun daal ko ñu dimbali la ñu bëgg au secours ndox mi sonal nañu gis nga man maa ngi dama waroon jàngi tey jàngiwu ma ndax dama amee sinusite ñun ñëpp dañu allergique ak ndox mu bon mi bala ñu ñuy defar tali waroon nañ ñu dimbali defal ñu canalisation bu au moins ndox bi bu ñëwee mu dem mais ñun ñu ngi nii dañoo yore ay jaboot yore ay xale yu ndaw jàkk jàngi nii buntu jàkk jàngi nii fii yëpp foo jaar ndox mu verte la ngir yàlla ak jëmi rasulaay dañ leen koy ñaan kaay ngeen dimbali ñu defaral ñu suñu koñ bi man moom dama feebar ndax man lii dama ko allergique maa ngi nii jàng sax ma ko tey ndax di sëqat xilaat bi daal mooy ah, duma technicien mais yaakaar naa ne tali bii ñu fi def ak ni ñu ko fortifié léegi ndox mi amatul suuf su ko naan ragal naa la ci la bokk def naa li gënoon daal mooy def assainissement ba noppi doo def goudron yi parce que goudron bi dañ ko fortifié kenn mosul gis ni dafa dafa dafa kii trop jafeñ-jafeñ bu day ni innama juy la sabtu jafeñ-jafeñ bi kay moom dara mënu ko faal jàkk dafa war a set parce que néegu yàlla yàlla bu doon wàcc àll ci àdduna ci àdduna fii mooy néegam kon nag mu mel nii salte ba nun ñii sax duñ am fundu ko kay moom musiba la moom waaye nag yàlla nañ ko yàlla dindil bi jaay sil wujud li may woote avant ma gis le nag dama jokkoo suma doom bi nga xam ne mooy trésorier général bu jàkka ji léegi mu ne ma de jokkoo naag directeur général bu kii bi ONAS ba jox na ko indication fi jàkka ji site yeeg yëpp après SED bi première yu deuxième bi ak jàkka yi ne ko imaam jàkka imaam Sow du sax imaam Sow jàkka yàlla mais imaam Sow moo fi nekk aussi li gën a siiw sax mooy eh, jàkka yi bës bës ko Sow wala Sayer Diop moo gën a siiw ñoom ñoo ma gën a siiw ñoom bés bu am nañu benn waay bu am bu am activité ñoxo baay def na délégué de quartier la ci boor yi moom itam toujours dana fii ñëw wax dëgg yàlla saa yu ñëwee aussi ñëw wii de yóbbu mais nag dootul affaire wii de ndox mi rek yóbbu déedéet léegi daal moom assainissement dëgg-dëgg la laaj du surtout nawet baa ngi ñëw mais wax yéen dem ngeen ba firme kii nag firme ngeen de terrain football bi bon te ndox mi fële lay jógee ci kaw lay jógee di wàcc fii defe naa daal tuyau yi dal moy tuyau yi ma gis fele ci Médina bi ñu koy defar ay tuyau yo xam nit xeyna na taxaw ci bir yu demé non dal mo gën parce que légui nak Pikine bu jëk ak diis bu jëk du bi légui gis ngeen fi all la won légui <laughs> gis ngeen ko quartier résidentiel la te defena même ñom sax amuñu assainissement defena ay fosse lañu am ñom wa quartier tabax yu reuy yu rafet yi ngeen di gis fosse lañu am gis nga soxna si taxaw Mariama Tamba fi moy kërëm fi mu ne du kër gi dafa fees del del ak ndox fii gi ngeen di gis dafa fees ak ndox d'ailleurs foofu lay jóge di wal ci jaar ci buntu jàkka ji ndox mi daf na sonal daf ma sonal mooy samay doom sax bu ñuy jàngi damay leen di tingoo sama sët yi di leen génnee ñun mënuñu julli sax ci biir kër ga kër ga daa fees del ak ndox danoo woote woote woote woote ONAS ba sonn xaw ñu ci pexe ndox maa nga wert doom yaa ngi soj biir yi di daw jéem nañu ba sonn mënuñu ci dara sunu ndox bu ñuy naanee sax neexatul ndax euh, kër ga daa am ndox fan yi moom mat na semaine yàlla ndox maa ngi nii semaine yàlla ndox baa ngi nii woote nañu ba sonn ba sonn jàkka jaa ngi nii ndox mi kenn xamul fooy jullee ndox mi daa fees dell ak jàkka ji ngir yàlla ñu ñëw jàppale ci ndox mi ndax ñun dañoo fay ONAS ñi ñëw defaral ñu suñu kii bi sàcc ñu dugal ko léegi boo wooyee waa ONAS ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw dañuy ñëw laal tuuti rek ñu bàyyi dem ndox mi daf noo sonal ñun xamatul nu ñuy def lekk sax mënatuñu koo lekk nawet bu ñëwee fekk ci moom xanaa mooy ñu fee ci biir ndox mi rek kër ya màbb si ñun ndax fi mu ne kon nawet ñëwagul ndox maa ngi nii sonal nañu. ndox bi daal metti na trop wax dëgg yàlla metti na trop école baa ngi ni jàkkaar lool xale yaa ngi bëgg a jàng mais dañuy sonn da ngay gis dañuy yëg sax si kaw miir di fu ñu jaar mais loolu rafetul suñ kër gaa ngi nii dañoo taal ci ba sonn xale yi dañoo sonn macha allah feebar yi bëri daal wax dëgg ñu ngi koy jàngoonteel mais metti na trop kuñ ci dumali daal ñu jël ndoxu foos kese la lii bu melee nii bu taw bi ñëwee fu ñu jëm dina gën a metti wax dëgg yàlla metti na daal. saako autorité yi ñu jàpp si ak chef de quartier yi ñëpp ñëpp ñu jàpp si daal ndax lii moom rafetul macha allah kon waaw monsieur le ak ñeneen ak ñeneen ñu topp si gannaawam yëpp ñu jàppale ñu xam nga xale yi ñëw fii di jàng si image la ndox mi yëpp nga xuus si biir lii moom baaxul daal kun si jàppale ñu jël ndox bi yàgg na de day dem ak a ñëw yenn saa yi day arrêté bu yàgg mu ñëwaataat buñ fi toxu see ba day tey daal ñu ngi jànkuwante jafe-jafe yu mel nii. ndox bi sonal nañu torop noyyi wuñu lekkuñu naanuñu sama kër gi xet kese la man maa dëkk nii jàkkaarloog ndox mi man ak école bi ñoo fi nekk. moo tax ngeen gis ma man man dong ma taxaw parce que man ak école bi la man ak directeur école bi ñoo fi kaas si ndox mi parce que ñun la concerne ñun lay ñëw suñu kër yi man noyyeetu ma lekku ma naanu ma ndax ndox mi gis ngeen ndox mi nu mel ndoxu foos la depuis ma xool tey la am une semaine. fee lay kulee ca di diis di ñëw di ñëw di versé wu fii wax naa ba sonn mënuma si dara ndox maa ngi ne sonal na ma wit nooyu ma man fi dama dama obligé tëj kër gi dem sama kër yaay HLM toogi fa parce que ndox mi ma ko nooyi. wa directeur bi nee na woote na wax na ñu doon defar tali bii aussi wax na mais ñoom nee na loolu concerné wu leen nee na moom li mu mën yëpp def na ko si mënatu si dara ñun nag ñu am ñu chef de quartier pour te dire technopole moom chef de quartier amu fi. maire Pikine man gisuma ko. Pam Ndong gisuma ko yóbbante naa si moo xam ne yóbbante yegg si na parce que fii ndox mi ñëpp ñëpp ñëpp koy gis parce que fii yoon la fii mooy central di central bi fii la ñëpp di jaar waaw bi bi fi ndox mi amee ba tey ñoom dañuy wiiri parce que lan ndox mee tax jaaruñu fii parce que moom mi ngi logé fii kon fii la moom doon duutam mais ndox mee tax jaaru fi kon war naa xam li fi xew. man nag li may sàkku ñaan mooy ñu dimbale ma rek ci ndox mi ak nu mu fa mën na jógee nag. mu jóge fi parce que man sonn naa nawet bu jot damay tëj sama kër dem sama kër yaay HLM fa laay teg 3 mois doo a ñëw si biir kër gi dégg nga samay feebar sama doom yi dañuy feebar dañuy sëkkat dañuy soj lu ne moo ñuy dal ndax ndox mi. ak nawet bii di ñëw na day gën a metti parce que si kër yi la jëm xoolal dama bëgg nga jël sama bunt kër gee ma doon raax tey 20000 francs laa ci def pour yéegal miir bi pour ndox mi bañ a dugg si biir kër gi. mu mel ni ñaxtu askan wi egsi na ci nopp kii di monsieur le maire Pape Gorgui Ndong mi yëkkati ay kàddu jëmale ci wàllum ndoxu foos bi sonal askan wi yeewoo ci Pikine West. jërëjëf euh, d'abord ci waxtaan bi dama bëgg euh, ci bu ma koy tàmbale ma tàmbale ko ci massawu population bi nga xamante ne tey ñoo ngi dund ci condition yoo xamante ne parfois c'est très difficile puisque doomu aadama yi yëpp xam nañ ne dund ak ndox ak eau usée wax dëgg yàlla neexut euh, à la sax mënul nekk euh, am na yàq yoo xamante ne ñoo ngi koy nemmeeku mën naa ci tànn rek bi nga xamante ne tey moom lañ gën a am jafe-jafe tey mooy fi nga xamante ne tey moom mooy euh, Maka Colobane abattoir longé technopole bi jëm ci technopole bi ñu nemmeeku fa ndox yu bari yoo xamante ne ñoo ngi jóge ci refoulement ONAS yi di dem di déverser wu ci terrain bi nga xamante ne xale ASC cosaan foofu lañuy ñuy euh, loolu nag indi na désagrément yu yu yu doy waar yoo xamante ne population bi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee ci biir technopole bi euh, wax dëgg yàlla ñoo ngi dund jafe-jafe yu metti euh, ba tax na sax fan yii yëpp ñoo ngi ci jokkoo di waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy kilifa ONAS yi euh, sama cabinet man mi ak euh, ñi nga xamante ne seq nañ ko yépp ñoo ngi waxtaan ak waa ONAS à chaque fois lu mel noonu bu amee dinañ leen woo euh, ñu ñëw def seeni intervention ñun au niveau de la mairie nous sommes en contact permanent

nous ñaan leen dal ñaan leen wax ñu muñ puisque en réalité li ñu soxla moy ñu régler jafé qui yi nga fait, amna fofu wayé nañ xamné suba ak ngone guddi ak ñoo ngi dox ci li nga moy définitivement question qui nga mom moy moom qui euh, euh ci ci ci yenn quartier yi di causer ay désagrément ci population bi. xam nga nak euh, collectivité territoriale dafa am lo mom moko, charte muy code des collectivités territoriales ba pare nag mu am ay compétences yoo xamante ne dañ koo transféré jëlee ko ci état bi transféré ko ci collectivités territoriales yi pour ñu téyal ko gouvernement bi puisque loolu liñ ci jublu rek mooy gestion bi nekk gestion de proximité ci biir compétence yooyu nag wax dëgg yàlla assainissement bokk ci kon euh, population bi aussi am nañ raison puisque lu xew ci seeni quartier ñoom du ñu xool ndax kan moo yore loolu seen res li ñuy seen premier réflexe mooy maire moo ñu gën a jege maire moom mooy dund ak ñun maire mooy ki nga xamante ne tey chaque jour fi euh, ngelaw li ñuy noyyi moom lay noyyi euh, bu amee loo xamante ne tey ay ndoxi ONAS la yu yu fatt foofu yëpp maire bi ci boppam ci condition yooyu ci boppam lay lay lay dund kon moom la ñuy interpeller ñoom xamuñu keneen maire lañ xam te loolu aussi dama leen koy nangul léegi buñu interpeller nak ñun fofu la suñu suñu responsabilité day dal di taxaw nak def interconnexion service yi nga xamantene ñom ñoo yor walu bobu pour xol les solutions d'urgence yi nga xamantene war nañ ko mëna indi waaye maire liggéeyul rek ci solution d'urgence maire day liggéey ci planification aménagement gox bi te ci biir planification boobu amna na secteur yu baree bare yoo xamante ne naam suñuy compétence waaye am na loo xamante lañ ci nasar yéene ko it mu bien-être population bi bu comme dañ ko arrimer ci plan Sénégal émergent dañuy dem rejoindre directement li nga xamantene tay moy service yi nga xamantene ñom ñoo am compétence ci walu bobu pour liggéey ak ñom puisque ñun li ñuy def moy un diagnostic local participatif bu mëna permettre identifier l'ensemble des

pro programme yeeg projet yi nga xamante ne am nañ ko am na ci programme yoo xamante ne tey ONAS mu ngi liggéey am na ci programme yoo xamante ne mooy jëm na ci surtout ci axe RIDIS bi nga xamante ne tey jafe-jafe yu métti lañ fay am am nañ ci programme bu am solo boo xamante ne mooy def canal yoo xamante ne dañuy gën a yaatu pour que qui nga xamantene tay jëm na ci assainissement bi ñu régler yi nga planification maire qui intervention maire euh, interconnexion différents services yi nga ci mi sa compétence ñu mettre ko maintenant en synergie au seul bénéfice euh, euh, des populations yi nga raison d'être